inclusif ñuy envisager la possibilité même que Ousmane Sonko bokk ci bu ñu rebattre carte yi euh, Ousmane Sonko ñu boole ci turam mu noppi ñu wax dialogue man pour man euh, yéen Pastef seen mouvement bi seen masse bi seen parti bi seen nit yi ngeen àndal seen sympathisants yi boo leen bu ñu yëgoon ne tey waxtaan am na diggante Macky Sall ak Ousmane Sonko y en a beaucoup qui seront déçus et que quelque part euh, les dirigeants de de de, de PASTEF on on, on hésite euh, à à à assumer ce dialogue avec Macky Sall. à assumer su nekkoon dafa à assumer ces discussions non, souterraines. Non, ah, ah, avec Macky Sall <laughs> assumer bu nekkoon dafa am man xëy naa benn jour en tant que président association éleveur. ne Ousmane Sonko ne président Ousmane Sonko dañ ma invité présidence jokkoo ak mag nga xamante ne c'est purement politique mais en tant que président de euh, l'ADAM association éleveur la moo ko président li m'a donné son goût ma dem dugg palais dem salde duggu euh, présidence dem salle des banquets toog jël kàddu wax li ma war a wax président Macky Sall tontu ma ministre de l'élevage euh, d'alors Aly Saleh Diop tontu ma ma jug jël samay bagage génn même que j'avais beaucoup discuté ak seen responsable jeune beeg yooyu ñëw foofu naa ma non et cetera bref ça veut dire ñun lu ñu bëgg a def dañ koy assumer man tey jii nii su nekkoon xam naa ni benn yoon la Ousmane Sonko am pour génn kaso bi benn yoon ñu discussion c'est-à-dire que ñun dañuy première discussion man laay défendre man parce que lu ma gëm laay défendre au-delà même de ces aspects de solidarité de groupe tout ça mais en parce que ñun ñi ñu si bëri en noonu lañ mel lu ñu génn sax di wane ne on est belliqueux tout ça c'est pas c'est pas important mais position mën nañ ko jël te koy assumer man xam naa ne Ousmane Sonko n'a rien à faire en prison te quelqu'un boo xamante ne c'est l'un des hommes les plus valeureux yi xamante ne euh, sphère politique bi am na ko parce am na ngëm-ngëm am na pas-pas am na conviction te du si déroger jamais c'est-à-dire que on yoo xamante ne soo xamee Ousmane Sonko d' assumer bu nekkoon dañ doon dialogué dañuy dialogué ak ak président Macky Sall. non pas dialogué mais discuter non non non non. on discute quoi xam nga tey même na doo nekk biir Sénégal di liggéey fii man ma xam fi ngay liggéey ma bëgg discuter ak yow choisir ne dama lay yónni nit président Macky Sall na la tëj na trois ans dem seeti ko. président Ousmane Sonko il a ses avocats qui font la navette su la bëggee gis su la bëggee yónni kenn da lay yónnee avocat mu xante ak yow da lay yónnee wala mu yónnee mais quand on ne discute pas on ne discute pas mais il est facile pour le président Macky de faire croire qu'on discute pourquoi parce que am na ay bonne volonté surtout que kenn ki il a pas longtemps il avait traité d'escroc finalement c'est lui qui le prend def ko émissaire pourquoi parce que c'est lui qui a besoin de discuter comme ni toogee woon en sa plateau bii nii ak euh, Dame ak euh, Yakham Mbaye may leen balaa may jugee léegi taxaw na ak Ousmane Sonko mu ne ma fajulu tel document yaa ko doon jox ma ko pourquoi parce que sëñ Mountakha daf ñuy à dire que ñoom ñoo yàgg a daw diree bu nekkee ñoom dañuy am problème mais ñun am nañu ngor boo xamante ne bu ñu teglu naxa yi dañ koy téye ba pare muñee ko te à dialoguer ñun xam nga lu ñu soxla PDS par exemple amul candidat ils ont un que ils pas su trouver de de de de second APR euh, Benno Bokk Yaakaar seen candidat bi ça pose problème ils le disent dans ils am nañ candidat de substitution cest à que président Sonko moo nekkoon sunu candidat finalement am nañ teg nañ suñu xaar yi teg nañ Bassirou Diomaye même boo dina Diomaye on avait d' autres c'est-à-dire que ñoom ñëpp ñu échoué ñi nga xamante ne ñoo échoué ñoom ñoo am intérêt si ay discussion su terrain ñoom ñoo am intérêt si ay dialogue du ñun ñi nga xamante ne pare nañ tey boo ñu noonu tey ñu demaat élection tey Sonko bokk ak ñàkk bokk ça revient au parce que le parti le projet en un candidat te ki nga xamante ne moo nekkoon en pole position vraiment cristalliser espoir yëpp moom moo taxaw ne diw mooy suñu candidat bi bi mu si consulté ñu si war a consulté donc qui est-ce qui a intérêt à aller faire des discussions sur terrain personne du ñu ñoom la ñoo ko soxla. mais mais mais la preuve li fi xew sax ñëpp wax nañ ko même si dialogue bi sax quelqu'un a dit nous il nous fallait faire ci faire cela pour reporter les élections et ça te loolu noonu c'est lié avec euh, ce ce ce ce dialogue prétendu là ak leneen ak leneen. mais Fadilou euh, Ousmane Sonko ak Macky Sall ñu ne Ousmane Sonko mu ngi dialogue ak Macky Sall ça c'est le jeu normal. de la de la de la démocratie je vous l'ai dit. mais est-ce que du quelque part psychologiquement euh, da ngeen dafa am de l'impréparation à s'asseoir à dialoguer à essayer de trouver une une issue que aujourd'hui vous êtes pris au vous êtes pris au piège c'est-à-dire tey mhm. bu ñu xëyoon ñu ne Macky Sall ak Ousmane Sonko ñu ngi jàll wala usman Sonko daf communiqué ne je suis d'accord pour le dialogue je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord di ngeen di ngeen réeroo seen militant yu bari est-ce que du impréparation boobu ngeen leen ngeen mu am ci ñoom nga xam ne bu dialogu deux mille dialogu deux mille deux mille vingt trois la non. deux mille vingt trois bi dialogu deux mille vingt trois bi. Euh, euh, Ousmane Sonko ne ne ne demul waa Pastef dañuy taxaw na ñoom bokkuñu dialogue amuñu lu ñuy waxtaan ak Macky Sall na organiser ay élections. Euh, ku gagné jël réew mi. non xam nga loolu c'est position comme ni ma la waxee rek c'est-à-dire que tey ñun buñ waroon dialogue ak président Macky Sall dañuy toog ouvertement ne dañuy dialogue ak moom loolu problème mu ci wax xam nga lan moo tax dañu nekk ci cheminement bu gudd di liggéey di ñëw. ba am fu ñu toll ñun on demandait que ñu organiser élection yi finalement président Macky Sall dàq ko su ko organiser woon heure bi kenn du wax ko discussion on n'en a pas besoin encore une fois c'est-à-dire ñun muñ nañ sax suñu candidat bi nga xam ne moom leen préparé depuis dix ans ñu teye ko de indi son jeune frère Bassirou Diomaye c'est-à-dire que loolu ko mën moo lay wan ni man pare naa pour dem ci élection yi Ousmane Sonko nga tëj ko kaso comme ñun ñi avant nga tëj ñu ñun dañu la waxoon ne la ñun affaire bi sunu bakkan bi jaral nañu ko la preuve sunu ay rak perdre nañ ci la vie Ousmane Sonko nga tëj ko sa tëj Fadilou nga tëj centaine d'autres personnes c'est-à-dire que terewul ne projet bi dafay avancer et c'est ça qui pose problème dafa li nga xamante ne moom laa gis maintenant toog président Macky Sall ne da ngay jëlee moom assumer ko parce que déggoon mu la wax ne la ñun forme bi ñu nar a jëlee tey bu nekkoon tey nguur gi dafa nar dem foo xamante ne neexuñu lu si mel ni transition transition mën na fi ñëw nee transition pour cinq ans kan moo ci gagné est-ce que ñoo ci gagné est-ce que nous nous sommes prêts consentir ces efforts là très hard yi fii ba cinq ans encore ci kanam est-ce que ñu toog fii ak cinq ans ci kanam ay bakkan di continuer di rot on s'est battu pour un projet boo xamante ne ci aboutissement bi lañ nekk est-ce que nous sommes prêts à faire amende honorable ak ñenn yi ci yenn affaires yi mais on ne fait pas de compromission président Macky mu am lu mu bëgg li mu bëgg na ko wax ouvertement exposé ko te balaa mu koo bëgg dafa xam ni moom ki nga xamante ne mooy principal opposant xamante ne moom la intéresse mu jalogal ko mi ngi kaso ni ñu ko fa dugalee c'est du grand n'importe quoi parce que ku mel ni Ousmane Sonko taxaw naa ko dañuy sàcc téléphone ak affaire yu mel noonu teg ko fee yokk ay charge c'est vraiment du n'importe quoi Bassirou Diomaye nga ne outrage à magistrat parce que dafa poser benn question ci magistrat yi nga jël ko dugal les gens ont dit des choses extrêmement plus graves nga teg la ñu ngi noonu ci biti cest à jël nit ci génne leen s'il est de bonne foi s'il aime le Sénégal bu nekkee ni président yëpp bi ñuy génn dañuy organiser élection génn moom bu nekkee bëggul symbole d'échec bu extrême bi nga xamante ne mooy maa ngi génn te mënumaa organiser élection dal ko il n'a qu'à sortir ces gens-là et les gens vont apprécier de l'intérêt de l'opportunité d'aller d'aller discuter ak moom ouvertement pas de manière souterraine c'est-à-dire ouvertement man mi fajulu boo ma délégué woon ne dama gisante président Macky damay dem toog moom je peux passer lui toute la journée samay conviction mun ci 100 francs pourquoi parce li ma bëgg moom mënu ma ko jox du xaalis du prébande du quoi que soit li mu bëgg mooy Sénégal bu avancé xeex bi mais sauf que ma ne tes tes tes tes idées sont. sont <laughs> non non non tu dans la noblesse de la politique Fadilou. pourtant li ma lay expliqué yaa ko peut être peut non non tu n'as pas suivi entre les lignes. j'ai suivi j'ai suivi c'est-à-dire Fadilou. waaw Macky Sall politiquement. et au plan stratégique. je mm. parle politique li war a am waxuma le principe. Mm. mënuñu xëy ñu libérer Ousmane Sonko. ñu libérer Bassirou Diomaye comme ça en disant euh, dem leen ñibbi vous n'avez rien fait. Mais pourquoi politique ci politique lañ nekk. c'est-à-dire il faut que euh, mu am euh, des prétextes il faut que ñu créer les conditions pour dire que la classe politique euh, se retrouve euh, qu'il faut qu'il faut pardonner et qu'il faut se récon réconcilier et le camp du pouvoir xam na ne. Mhm. vous faire accepter le dialogue. vous faire accepter une loi euh, d'amnistie mmh. vous faire accepter tout ce qui se dit sur la place publique euh, mën na leen politiquement tamit wàññil lu bari on est dans un dans un jeu d'échecs politique. maintenant que maintenant maintenant maintenant même na ñun. duñ leen koy du yomb on ne sera jamais caution de ces stratégies là et puis ces stratégies vraiment. vraiment accessible quoi très simple quoi très simpliste quoi parce que xam nga la moo tax tu sais parti boo xamante ne comme Pastef la mel il faut que les gens fassent li ko indi ba fii nii mais autre stratégie la wax ma stratégie autre stratégie c'est-à-dire que des gens ont fait passer un candidat boo xamante ne personne ne voyait venir au Sénégal et je peux te jurer que cette planification elle a été faite depuis très très très longtemps. non je te jure. dañu bëri ils n'ont pas vu. mais c'est loolu su ko passé bu mënee def. c'est-à-dire que faut xam ne ñii riva maanaam ñi nga xamante ne ñoom lañu seqal langue politique foog ñu xaw nawlonte tuuti. parce que Ousmane Sonko il a quelque chose quelque chose quand même dans la tête il est très très bien entouré ba pare kenn ku nekk si ñun la ngay jëriñ feneen di ci am sa revenu cest dire que dañ ko mettre à contribution gratuitement cest dire que les ba ça fait travailler plus les ménages day tax yow da ngay gën a mën a fi peut-être gën a xam yow fi ngay taxaw c'est-à-dire que ñii seen li ñuy teg bu nekkee li ñu ko teg rek pour cautionner nii c'est-à-dire que ils ne trouveront jamais caution chez nous man xam nga laay prôné lu clair lu limpide lu transparent que les gens en gentleman agreement ñëw. tout n'est pas transparent en politique. oui non tout ne pas être transparent on le sait la preuve je vous dis des choses je vous dis jamais des choses que que que que, que ni ñuy def nii Macky Sall loolu la war a mën a jéem a def il n'a qu'à franchir de prison parce que li ko jàpp ci flagrance du trafic de de de faux billets il a pas fait sept mois mois ils sont sortis ñun rëbës la di fa gis leen gis nii xam ne ils vont sortir. ñu ci ah, ah, quand vous étiez à Rebeuss. ñu bëri non ñu bëri may a du fa ñun dañu ñoo jàpp da ngay gis nit bandeur de drogue gis mu romb la nii génn nit ku ñuy toppee milliard un mois génn nit ku ñuy toppee milliard et quelque bu mu jël ci état six mois bu nekkee juge bi notifié ko demul procès il est libéré par l'article 127 bis six mois il prend un milliard et quelque ou deux milliards de l'état il sort comme ça devant toi c'est-à-dire que on sait comment est-ce que les gens gèrent les dossiers quoi c'est-à-dire que président Macky Sall su bëgg Ousmane Sonko jóg am na fu muy jaar pour génn léegi bu ko bëggee habillé nag mais muy def habillage boobu muy def mais ñu si dugal quand parce que dañu am ay objectifs yu clair c'est-à-dire li ñu bëggoon mooy dem élection nañ dem élection bëgguñ dem élection nous sommes légalistes ñu ngi saisir juridiction ñu war saisir ñu ngi àtte en notre faveur ñu ngi àtte en la faveur de de la population sénégalaise ñu ngi sant yàlla quoi on n'a pas besoin d'avoir discussion sur terrain nit yi bu ñu soxlantee dañu war a mën a discuter en plus les gens doivent pouvoir s'asseoir guerre yi gën a mag ci monde bi comme euh, ba tey ba sànq ñun bugguñu mukk gis président président Macky Sall mu ñàkk bëri tooñ na passif lu bëri tooñ na Sénégalais yi lu bëri li mu def dafa dem ba àdduna bi won ne ko yow yaa tooñ si le faire amende honorable nag bëgg dellusi dellu si génn ci li mu def il peut le faire mais mu on ne sera pas caution pour pourquoi parce que ñun dañu accuser à tort ñu kaso mel ni Bassirou Diomaye Diomaye nekk inspecteur du trésor non euh, des impôts nga jël ko dugal ci kaso bi c'est-à-dire que amul de représentation yu ko yu ko mën a may mu génn nga téye passeport am bàyyi ko mu nekk ci biir alors que des gens des des, des vendeurs de bàyyi leen suñu kanam ñu génn ñu leen nit day ñëw rëbës ne la ah man de lañ ma jàppee sama bunt ko lañ ma jàppee on a fait perquisition bi ñu defee perquisition sunu sama nekk fekk nañ fa 39 keesu produits stup il fait pas un un mois il sa liberté provisoire cest dire que les gens doivent pouvoir laisser les gens sortir bu ñu génnee ñoom ñooy apprécier est-ce que jar na ma toog jarul ma toog ñu toog réew bi waxtaanee ko et puis affaire yi avance Ousmane Sonko du daw responsabilité askan bi yépp bi mu gënee metti temps yeewu kasam di am problème yu bëri di attaqué ñenn leaders yi dafa taxaw jël contre pied wu li askan bi yëpp doon wax assumé ko tey jii nii fi mu gën a tàngee da ngay gis mu taxaw jël le contre pied de nit ñi c'est-à-dire il est comme ça même en réunion il a dit publiquement parfois je suis mis en minorité pourquoi parce que li may défendre lii ak lii ak lii ak lii j'ai pas le mot Ousmane Sonko amul ego boobu l'ego de Ousmane Sonko l'ego éventuel de Ousmane Sonko wala bu président ak benn président boo xam ne na nar a génn xamul fu muy jaar pourquoi parce que il a fait beaucoup de mal gouvernance am doy na waar tey yi ñun nous sommes très très très disposés prédisposés à à, discuter moom mais defuñu ko pourquoi parce que par le passé on a eu à lui donner la chance de discuter